Baske, li mè wak mè dè pa mè solò, ninye ninye yu si yu gran rekt? Yo, mè nga kha menjeni yo, yo yon fèkè shok bi, gè yon ninye yu si yu gran rekt? Nou, fèkè mè shok bi sa, mè man damò dik bi, otè bi duke. Ti la duke di voyaj dem dakar. Bi nyè nyen shok bi, bi nyè men shok bi nou. Dak deg nan sa, otè bè mak bi, se san yon bi. Ou lè, li lè lè lè men yon mè ton bab, mè, li mè yon lan se apèl pou Senegalè gè gèl go baye hel. Man, shok bi, mè nanè ti la, ni fin de kè sama téléphone boo amul benn photo nañ ci invité di photo soog yi. man loolu ma mujj énervé ma wàccaat dem sama oto ma toog fa ndax da ngay ay xale yu yuuxu ñu sëb man am na xale ma nga ni dama dama yëkkati ay verre yëkkati xale bi seppi ko jox ko nijaayam ay jigéen am na femme ba nga xam ni bi ma koy yëkkati ma amul ñi taxawu amul ku ñeme jàpp. man naa ko diri te attanu ma ko ba teg ko ci kaw tali am benn femme xam tànk dafa dem maa leen génne loolu bi ma énervé moo tax ma mais loolu dafa ëpp. nañ nañ nañ invité kon bari na. ndax ñu ngi naan ñaan da mat nañu vingt wala matu ñu mais daal li may lancé appel man li ma bëgg mooy doomu aadama yi nañ bàyyi di filmer ndax tey avant sapeur di ñëw. parce que def nañ lu mat ay quinze mille vingt mille sapeur ñëwul bu ñu fi nekkul bu ñu dimbali woon jaam yàlla yi. kon xëy na ñi ndax nit ñi dañoo waxante sauvé dina am mais man daal sama xol neexul xam naa daal war nañ dimbali nit ñi ci yenn actes yi waaw bàyyi filmé yi bàyyi téléphone yeeg filmé yi voilà mi ngi ngeen gis ni bi li ñu wax kii am na ko kii ñu doon laaj léegi bokk na ci ñi nga xamante ni ci ñi njëkk a yem ci choc bi la yow da ko fekkee. waaw fekkee naa ko waaw yow. ay sa kër du yooyu ci la am quoi. léegi mais am na benn pas boo xam ne même chauffeur bi sax apprenti chauffeur apprenti bi géddagul ne quoi te itam xam naa bu ñu njëkk jiwaatee bi am na ñeneen ñu war a nekkaat ci suuf dafa féetee oh, benn mbaam ci la dal ci sa ci camion bi waaw léegi mais mais ñi ci gaañ moom jigéen ñi moom. camion la ak. Oh, waaw waaw. léegi euh, mais kii bi moom am na ku jigéen ci kooku rek laa ci xool ci jigéen koo xam ne kii dama ku jigéen ku am doom bu ndaw bi kooku moom jël na doomam ba di ko kii ba di ko nàmpal mm-hmm. chauffeur bi itam maanaam gaañu yaakaar naa gaañu nàccul quoi bu dee day damm day damm rek moom moom génn na bay wax waaw. mais ñi ci ñàkk seen bakkan bari na na ba ñàkk seen lim bi buñ ko xayma. man daal 15 ëpp na 15. 15 15 moom ëpp na ko ci li ma li ma gis ëpp na 15. waaw ëpp na 15 moom. voilà mi ngi noonu gis ngeen ambulance yi ñi ngi noonu di yóbbu ñi ngi noonu di yóbbu ambulance yi gars yi ñi ngi noonu di yóbbu euh, oto yi bële moo choqué xam nga dañu dañu dañu xaw a bële moo choqué donc duñu